ni euh, portrait boobu moo ñuy wan euh, benn mbër bi ñu nemee ci bésu le 20 février waaye balaa ñuy sori dañuy àndaat ak yéen xool portrait Oumar Kane Reug Reug moom mooy kan fan la jaar ñu ànd ci ak Jean Paul Ndour mu xame lañu ak champion Caaroy bi ñu gën ko xam ci tur bi ñeneen ñi di ko woowee Jinne Caaroy ñaar fukki fan ci weeru février atum 2022 lay bëreeg guy gi mu am ñaar fukki at ak juróom-ñeent 1 mètre 93 di peese 120 kilos diggante 2019 ak 2021 ci fukk juróomi combat am na ndam fukk ñetti yoon mësul am match nul mësul am défaite waaye am na ñaari combat yu am jiixi jaaxa maanaam arbitre joxewul verdict rëg-rëg daan na Gris 2 Elton, Jordan, Bébé Saloum, Brise de Mer, Balagay Junior, Faliarach, Bazooka Ngoy, Obama, Boy Diouf, Boy ak Alioune Sèye Junior mu doon xale bu feeñee ci mbapat mu ràññeeku woon ci lool di doom ak sëtu mbër Thiaroye-sur-Mer Santhiaba Kaneen mim cosaano ñëpp xam nañ ne diwaanu làmb la rëg-rëg gañe na drapeau njiitu réew mi ñaari at yu tegloo rëg-rëg jongante na ca tournoi CEDEAO atum 2016 ak 2017 yeneen nawle mi taboon ko kapiteenu équipe nationale bu Sénégal rëg-rëg woneti woon boppam ak ñaari médaille d'or individuelle ak par équipe mu daanoon jël bu amateur di caw ba léegi doomu Niger bi mu daanoon jël bu amateur yi di coow ba léegi doomu Niger boobu nekkoon ci catégorie 120 kilos yi rëg-rëg soobu na léegi ci MMA di arts martiaux mixte am na ci ñetti ndam ak benn défaite mbër mu jafe ci mbër yi day bëre loxo day bëre tànk day mbot day caxabal tuur bii di rëg-rëg nijaayam Mansour Kane moo ko ko tuddee gannaaw bi rëg-rëg juddoo àllarba nijaay ji seet si woon yaay ji tombe woon ci théâtre bi ni mel doon daw mu doonoon waa Baraye bu Ndar ndem si yàlla ba Badara Diagne Golbert nekkoon acteur principal bi champion bu làmb bàyyi xel te amateur yëpp jàpp nañ ne bës dina ñëw rëg-rëg nekk roi des arènes bëre baa ngi ci moom te ngemb baa ngi ci moom rax ci dolli ak mën a fecc rëg-rëg vaillant